رسول الله رسول الله حبيب الله حبيب الله نبي الله jërëjëf mbokk jullit yi jërëjëf mbokk gis ngeen ba tay ñongi and ak yeen ci dekk bu sel bi di tawan ñu ñew nak and ak yeen set si fi nitu yalla borom njàngale mu réy boobu nga xam ne daf ko doon ci maam Cheikh Sidi Hadj Malick doon na ko ci maam Seydi Boubacar si waaye doon na ko ci bàyyam Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum kooku mooy borom daara mu cher ci dina war mu sax di mbooloo moo xam ni mbooloom yàlla rek la waaye di mbooloo moo xam ni mbooloo muy jàngale la njub waaye mbooloo muy jàngale ak dëggu la Cheikh Mamadou Moustapha gis ngeen yëg si na mbooloom yëpp a ngi nii toog di ko xaar di li seen cofeel ci moom waaye di feddali seen kóolute ci moom ak seen yaakaar waaye moom it waxtu wi saa buñ ci mësaan yegg si daana def lu mu gàtt gàtt génn ci balcon am xool mbooloo mi teg leen bëtu bëtu yërmandeem yooyu xool mbooloo mi teg leen bëtu cofeelam googu xale yaa ngi nii góor ak jigéen mag ak ndaw ñëpp di ko bëggee ak di ko safoo te li tax ñu di ko bëggee ak di ko safee génnul yonent yàlla Muhammad alayhi salaam génnul Cheikhuna Tijaani génnul maamam ja Seex Sidi Hajji Malick waaye génnul maamam ja Seydi Boubacar Sy ñu ñëpp di xencu ci moom jëmmi baayam seen Seex Sidi Hajji Almakhtoum ndax ku ne xam ne ni que moo ko yaral boppam daan ko teg ci wetam sotti ko njàngalay boppam ak ñi mu daan formé ay doomu aadama rawatina ndaw ñi ba tey réew mi tey fépp foo dugg fekk fa ay ndawam bul laaj boo leen xoolee ci doxalin boo leen xoolee ci kaddu boo leen xoolee ci jëf xam ne ñii kat ay ndaw yi Cheikh Mouhamadoul Moustapha Sy lañu kon mu ngi noonu léegi sëriñ bi génn taxaw ci balcon bi saafonteeg taalibe yi ñun Dakar ak fii dañu wax ni gàmm gi dara du leen ci ëpp ñu ànd ak yéen ak fépp fu mu mën a xewee la ci gën ñu indi leen ko yéen ñi nga xamante ne que yéen suñu interro mu ngi noonu Cheikh Mouhamadul Moustapha Sy ibnu Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum moom Seydil Boubacar Sy moom maam Cheikh Seydil Hadj Malick mu ngi noonu gis ngeen xale yaa ngi yuuxoo mu ngi noonu ndeysaan sol jalaab boobu yëkkati loxo yi di saafonteeg taalibe yi yëkkati loxoom yi di ziar taalibe yi mu ngi noonu mu ngi noonu Serigne Moustapha Sy mu ngi noonu borom daayira Moustarchidina wala Moustarchidaati lii rek mooy ak cofeel waaye lii mooy bëgg ndeysaan cërub yàlla gis ngeen ni mu toll cërub lislaam moo toll noonu waaye tey gis ngeen ko moo ngi noonu di tàllal loxoy taalibe yi xoolal xale yaa ngi noonu xale yëpp xamuñu kenn ku dul moom ndax moom moo leen formé ci daaraam yu tedd yooyu nga xam ni daayira daara xam-xam la waaye daara bu mën a yare la dama la wax sàq ne la Ousmane réew mi boo gisee ndawul Cheikh Moustapha Sy bu ko laaj bu waxee rek nga xam ne moo ko formé waaye bu jëfee nga xam ne moom moo ko formé sëriñ baa ngi noonu yëg ci sànq ñëw di saafonte ak mbooloo mi ndax bu ñu fàtte ne que tey Ousmane dañu war a ànd ak moom dem champ de course waaye suba it comme ni mu koy defee à la coutume waxtaan ak mbooloo mi mu ngi noonu sëriñ baa ngi noonu mu ngi noonu së sëñ Moustapha Sy wa ngi noonu borom mu chargé war mu chargé daal dama wax ni sëriñ Cheikh moo ko jur waaye moo ko yaral boppam joxewu ko ci ay tenqam la màggee ci ay tenqam la yaroo xam-xam bi ci moom mu def ko ci moom jikko ji ci moom mu def ko ci moom mu ngi noonu gis ngeen day ndeysaan gis ngeen cofeel gaa ngi noonu dëgg la li moo war a lié ak ab sëriñ akub taalibe waaye moom saa su ne daan laal duma seen sëriñ seen xarit laa mu ngi noonu di ñaan mu ngi noonu di ñaan dama wax ni tey koo gis tey da koy xoolee bu Boubacar si mii maamam waaye koo xool Ousmane si xel day dem ci baayam ba Cheikh na Tijani mu ngi noonu mu ngi noonu borom ilayka mu ngi noonu Ousmane serigne baangi nonu dañ koy ñaanal rek yalla sam ko yalla bàyyi ko fii yàlla jàppale ko yalla dimbali ko ndax jubanti ndaw ñi rek moy liko ñor jappale ndaw ñi rek moy liko ñor defal réew mi rek moy liko ñor faxe ba nak ndaw ñi ci mbax mu ngi nonu kon ñepp neenañu amin Cheikh mamadou Moustapha mu ngi nonu ndaysan nee na orofaar mu ngi delu wat ci negam mu ngi noonu di wat ci negam ndaysan xala yaangi nonu xol xool seet na Ousmane li moy l'islam waye li moy réew mi li moy mbax Ousmane lii mooy mbaax lii mooy mbaax Ousmane lii mooy réew mi gis ngeen Cheikh Mouhamadoul Moustapha si moom Cheikhouna Tijane ñëw na jàkkaarloo ak taalibe yi ñu jugee ci gox yu fasantikoo yi dama wax ni Serigne Cheikh ko jur moo ko yaral boppam def ci moom xikma waaye def ci moom pédagogie def faxe ba jàngal ko naka lañuy ñuy former ndaw ba teg ko ci siraatul mustaqim Serigne Cheikh dem na ci moom naka la ñuy dimbalee ndaw ba teg ko ci yoon ndawil war mu Moustarchidaat yaa ngi nii koo ci gis melaw wi mu yor melaw l'islam la waaye koo ci gis melaw wi mu yor xam ne lan mooy la citoyenneté kon mbokk yi lii la ñëwoon tey ànd ak yéen fii ci kër gi nga xam ne mooy kër si Moustapha Sy moom Cheikh na Tidiane ñëw indil leen saa ak nuyoo bu sell boobu bu tedd boobu nga xam ni moom lay def ci kanamu taalibe yi gis nga ñëw na tàll ay loxoom nuyu leen saa ak ñoom ñaanal leen wan leen ni ko cofeel ngeen am ci man cofeel gu ëpp wala ko raw laa am ci yen kon mbokk yi ñu ànd ak yéen dem champ de course ba suba ànd ak yéen dem champ de ba tey ndaxte lépp lépp loo xam ne ci gàmm gi la concerné ak li mu àndal du leen ëmp ñun ak yéen ci dakaractu point com bu kenn yëgu ñoo ngi ñëw ak yeneen vidéo رسول الله رسول الله حبيب الله